dajale mhm. fu mu mënti doon loxo mami dana ca dem sa loxo dana ca dem loxo ngóone dana ca dem mhm. mais yéen yéen a ngi servir état kon état buñ ne xaaruñ dara ci moom ah mhm. njaboot gi nga am ñuy ay taalibe te ami di ko fa indi dañuy ŋacce ci état moo xam ñu koy ñaq wala ñu koy lijjanti ñëw indi tegal la ko kon état mu ci biir mais li may sóor li ma lay li ma lay jox foofu rek dala la sa xel nabu gis nga fi ñu jëm moo dàq moo gën moo gën a noppale ci kilifa yi que fi ñu jóge alhamdulilah alors. incha allah loolu maa leen ko wax te duñ ci am bettaay. alhamdulilah foofu lañ jëm. Mhm. xam nga yi ñu doon wax naan dañuy xeex sëriñ dañuy dugg fee génn fi non ñun amuñu jot yooyu. Mhm. amuñu jegewuñ sax loolu. déedéet. Mhm. loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. d'accord incha allah danañ ci kanam buñ ko buñ ko bu paree ci nomination yi muy def ak yépp. d'accord jàkkaarloog ñun. da ngeen jot loo xamante ni ëllëg da ngeen ma invité fii dinaa ne leen. kon ñu bëggoon mi ngi nii ci këru diine. kon ñu ngi xaaral ay ca ajaratu toog nag. Ah, waaw waaw. yàlla na ko yàlla mottali àjjuma jot nga ñëw allah. dama xamul nga fi am nga fi am nga fi place laaj rek mu ngi lay seetaan. ay ca ajaratu ban ban jàngat nga am ci. Euh, euh, imam Kanté li nga xam ne moom yëkkati na ko euh, ne moom d'accord ci ni ñu tabbee kuréel googe ñu commission bi nga xam ne ñoo war a peut-être taxaw ci këri diine yi moom it kaddu bi nga xamante ne yëkkati na ko ci euh, ndax ñoom bu ñu paree ci mesures yi nga xam ni war nañ ko gunge këru diine yi dinañ joxaat place bi nga xamante ne këru diine yi am nañ ko ndax xam nañ ni fànn wala pàcc bu am solo la ci réew mi waaw madame de xam nga moom c'est une forme de révolution boo xamante ne dafa ñëw indaale et innovation ak euh, gis-gisam la vision bi nga xam ne moom la ci développé léegi mm-hmm. dañuy comprendre aisément Euh, ñoom fi ñu bëgg dem donc te fi ñu bëgg dem yàlla na leen fa yàlla yóbbal ba ñu ba dem fa yegg fa ak jàmm ak salaam aussi xëy na peut-être Cheikh li muy bañ mooy que mbiru religion mbiru politique rax ci euh, mhm. parce qu'on a vu à plusieurs reprises dëgg que ne loolu daf fi existé depuis des années et souvent c'est source loo xamante ne dafay jur ay réeroo ak pëccëxoo bu mhm. nu mënee fexe ba politique bi daal gën cee teggi loxoom mhm. euh, dina gën a am solo pour taxawaay wi maintenant nag la vision de l'ORAP ak li ñu ci bëgg def baax na man nag damaa mob laaj pour imam parce que imam euh, c'est pas histoire dama bëgg delluwaat ginnaaw mais dama dama bëgg gën a comprendre te xam naa ne ni mu lëm ma lëjee sama xel noonu la lëjee ci xelu ñu bari ñu ñuy seetaan te on a la chance de t'avoir sur le plateau donc lu bari dinañ ci mën a leerlu xam nga yéen euh, imam yi da ngeen mérité lu nekk ci àdduna loolu mooy yoon waaye euh, souvent bu may dégg yenn explication imam yi je me demande mhm. ndax euh, imam yi moom dañuy liggéeyal nit ñi wala dañuy liggéeyal yàlla parce que dama ah. jàpp ni am na yu ci bëri yoo xamante ne maanaam ay tudd ay nit ku génn àdduna euh, nga ñaanal ko ak yeneen yu ci topp loolu xanaa ci liggéey yàlla la bokk mm-hmm. léegi nag xëy na lenn lu ci nekk xëy na l'islam tëral na ko ci charte ti loo xam ne ki nga xam ne xëy na moom la moom la war a génnee comme takk ni ñuy takkee sëy nga war a génnub mm-hmm. na boo waree sangub néew am na loo xam ne danga ko war a joxe wala loo mën a teg ci yoon est-ce que du mm-hmm. foofu war a a jaarale et que imaam yi aussi pour ñu tuumaal leen ak ñu di leen dugal ci yenn coow yi nga xam ne dëgg-dëgg da leen suufeel du leen yëkkati te réew mi y pas seulement que la communauté musulmane je rappelle oui. qu'il y la communauté chrétienne aussi il y a les ñu fi nekk il y a que est-ce que ñooñu itam dañuy dem di rang ñu leen di jox cinquante mille à l'occasion des fêtes de Pâques ou autres mhm. loolu itam c'est une question boo xamante ni il faut que ñu koy suuraale bañ a xam ne on n'est pas dans une mhm. euh, dans un pays à connotation islamique léegi mhm. ma dugalal la foofu dugal dugalal booy wax euh, jàngu bi waaw Caritas waaw invité Sénégal yëpp ñu dem xool uh-huh. la ñuy am mhm. ci li ñuy dajale mhm. fi ñu koy investir mhm. ak apport bu am solo bu ñu amal communauté bi rien que Caritas rek parce que chaque année ñu def seen évaluation y a ça et que moom ci biir développement am li ma ci kontaan mooy mu ngi naan ci nomination yi am na ci ñu bari ñoo xam ne c'est des arabisants te man dama gëm ni Mm-hmm. du ñu jàng école rek akub diplôme ñoo ñoo amul xam-xam. Mm-hmm. ma gëm ni itam dafa am ci yéen ñu war ñoo xam ne par exemple yow ku la dégg ngay war ngay xam ne du sa du profession imam kese quoi du danga ñëw toog rek jàng diine di di firi diine. Mm-hmm. bu ñu lay dégg ngay dugg ci yenn question économique yenn question politique te xam naa ne bu ñu la duggaloon ci sport ak yeneen da nga ciy am idée mooy ne xanaa tu métier. boo xamante ne bu dul très bien gardien de but ku ci nekk ak. Ah. yow kay lii lii moo tax. imam nag maa maa ngi doon comprendre ma lépp laay enquête. dee <laughs> tax kay ngoone bu dugalee bu dugalee imam nga capté. <laughs> alors est ce que la profession dugal ñetti bii nga capté est ce que pour ko dee daggal du basé sur la base de profession. ça c' est mm-hmm. boo xam ne dëgg-dëgg tu sois imam ou pas. Mm-hmm. dina la permettre nga am revenu. et ci liggéey yàlla googu est ce que dëgg-dëgg laaj na rémunération ou alors bu ñu ko dee def ndax yamale waxta am entre les musulmans les chrétiens pour qu'il n'y pas de disparité. gis nga man fu ma mos a nekk foofu dama la ciy tontu fu nekk. Euh, lu ëpp yeemale sax dana fi am dama lay jox misaal ci commune Mermoz Sacré-Cœur bi Barthélemy euh, géré woon. oui euh, booy seet ci neuf domaines de compétence am yi moom. Mhm. daf ci boole wàllu diine. mu dénkoon ma ko mais bi ñu toogee bay waxtaan ci wàllu nu ñuy doxale ak jàkka yeeg jumaa yi ak église yi dama ni ko yëkkati xaalis di ko jox mhm. nit. te amul justification maanaam waxuma bu jëm ci côté état waaye ci wàll ci wàllu néegu yàlla bi mën na indi coow waaye looy defal jullit ñi da defal catholique yi loolu. waaw il le faut. communément moo sacré onze mosquées. Mhm. bi ñu toogee dañ ni nan lañ leen mën a jàppalee. xam nga ngoone. Mhm. Abdou Diouf bi mu fi nekkee. Mhm. ak Senghor Abdou Diouf bi mu fi nekkee ak Senghor. ñoom. dañ daan fayal jumaa yi ak euh, nu ñu koy tuddeeti jumaa yi ndox ak courant. Mhm. dañ ko daan fay. Abdou Diouf Abdou Diouf ci reñam am na fu ñu ko fu ñu ko daggee bàyyi mais ca Senghor ba fii dañ leen doon fayal ndox courant. Mhm. ba pare di leen jox ravitaillement. loolu jaadu na. Mhm. loolu jaadu na walla jaadu na bon bi yàlla dogalee Abdou Diouf dem ba ci fin bi ci la ñu dàq loolu parce que dafa mujj nag jumaa yi nekk effervescent bëri. fu nekk nga tabax jumaa kenn ku nekk di réclamer du sotti il faut ñu organiser ko ñu mën a am li ñu bëgg ci jumaa yi ak seen budget mhm. eh, bu ma dellusee ci sa question waaw loo waxati léegi am na loo mujj junj mhm. man mi danga ne xanaa du yàlla rek waaw maanaam def du mbiru yàlla lu ci war xam nga xam nga képp képp kuy jóg mhm. yàlla intérêt tax mu sàkkuñu waaw maa la ko wax tey. jàppal boobu intérêt yàlla euh. mooy wama umiru illa li abudullah muxlisiina ca bayi na digaluma leen lu dul ngeen jaamu ma mhm. waa buñ ko jaamoo parce que moom mooy buur mhm. lan la ñuy fay mhm. kon fay ñëw na diine amul looy def ci duñ la fay yow mii amul looy yëngatu ci waruñu la koo fay looloo tax États-Unis xam ak doomu aadama ba par heure la ñuy fay soxna ma mi yàlla daf ni boo ma jaamoo ma fay la waa léegi yàlla mi nga xamante ni moo ñu yilif ñun ñëpp xam ñun li ci suñu biir ak suñu biir ki ko nangul ak ki ko nanguwul mm-hmm. mu ne la boo ma jaamu ma fay la mm-hmm. waa nit nga ñëw di jaamu soxla nit ki ci yàlla mm-hmm. mais kooku yaa ko balaa mu lay wax fay ma wala wala wala muy yëkkati yaa ko war a teral te am na ñu baax ñu may dégg ñoo xamante ni tey bu ñu dëkkeek imaam ñoo koy nourrir ñoo koy loger ñoo koy defaral lépp mais li ma bëgg xam ci diine est-ce que amul luñ ci luñ ci firi luñ ci bind maanaam ci lu nit ki war a génne wala amul. non non non diine moom organisation la laaj rek diine moom lim la xas a wax dalay lay diine dalay teg ci yoon. Mhm. léegi nag la ca des nag pour matal ko mais li xew ci jumaa yi ak jàkk yi am na ñuy def erreur mais liñ leen teg ci lu anormal. moo ëpp li ñuy def ci erreur. Mhm. imaginer jumaa yoo xamante ne ay imaam a nga fa man soxlawuma ko ma fay salaire. Mhm. ñu ngi sant yàlla. suñ ma ko joxoon tamit ma jël. mais ngay jiite suba ngoon mami <laughs> ngay jiite suba ngoon àjjuma ju jot ñu yëkkati 1000 francs jox la. waaw loolu waruñu ko def. luy bon na fata 1000 francs nga ne ko. bon na fata 1000 francs maanaam lan mooy 1000 francs 1000 francs mënuma jëlee jumaa ji ma jot. dama dëkk dama yóbbu dama yóbbu ma doxee sama soxla. chaque àjjuma ñu jox la 1000 francs. chaque àjjuma ñu jox la 1000 francs. yàlla te dañ koy yelwaan pour jox la ko mami. dañuy jël mbuus gi wër ci jumaa ji ngir yàlla ci liggéey jumaa ji ci liggéey jumaa ba pare bu ñu paree ñu xool eh, imaam xalifa taxañ mille man leen bu ma ko kenn jox tax beneen imaam bi taxañ jox la mille francs lan la pour jënd attaay wala nga jël taxi mais loolu mooy li jaaduwul xam nga li waroon jullit ñi ñëpp organiser wu yaa ngi wax ci église yi maîtriser wu ma mais maa ngi ciy dellu si bi mu waxee daf ni ma dama ni ko fayal leen ndox ak courant comme ni Abdou Diouf doon def loolu yoon la ñu xool onze mosquées yi. ñu gis ne suñu mosquée ñun ñooy gën a consommer ndox. ak courant. ñu def ñu jël factures yi xool ne année bi yëpp danañ ci consommer dans les normes ci courant plus de huit cent mille. baat ne ma léegi nañ ko arrondir ñu def ko un million. par année ñu leen di jox chaque année un million mais bi mu waxee jàkk yi y' a onze mosquées kon y' a onze millions. gannaaw cathédrale moo fi yor église bi gën a ngande waaw te yaay meeru Baobab te bokk ak ñun diine mu ne ma kon nañ leen jox un million ma ne ko non du ñu yem parce que fii onze million nga fi def ñoom nañ leen jox deux millions. waaw au lieu ñu leen di jox un million man loolu laa xam loolu laa gëm. te loolu la ñuy doxal foofu loolu lañ doon doxal fii ñu bokk nii ci Pastef loola la ñuy doxal parce que xam nañ ni ñun ñëpp ci yàlla lañ jëm. te ñun ñëpp ñoo bokk benn yàlla bi donc yooyu dama la ciy bàyyiloo xel bu baax mais organisation bii ñu nar a dem jëm ci jumaa yi jëm ci daara yi dama ni la jëm ci jàngu yi jëm ci jàngu yi dama lay waxal ne la fi ñu ko nar a yóbbu moo gën fuuf da ngeen di indépendant maanaam après voilà incha allahu lañ leen di defal mhm. benn jumaa dootul coowati wala jàkk très bien d'accord benn jumaa dootul. mais te dootuñ déggati benn. imaam wala benn ay ay xuloo yeeg yooyu. xuloo yeeg la ci coowal suuf wala ci coowal leen yi ndax dootuñ ko doyati. coowal suuf moom ku ca dem bokkul ci jàkk. d'accord bokkul ci jumaa bokkul ci jàkk. jumaa ji daal bu ñu ko mayee espace bi pour ñu tabax fa jumaa. nañ fa tabax jumaa bu nodd jotee bilaal bi na dem nodd bu jiite jotee imaam bi na dem jiite. fukki nit yooyu gis na kenn lañuy bunge. waaye jàng sam jàng rek jóge fa la ñëw. toog ci jàkk ñaari at ñetti at di xëccoog imam ratib ba fa nekk loolu moom mooy indi cooyeeg yooyu te loolu moom yaakaar naa ni ku ñàkk fay dong yaa koy nangu d'accord jërëjëf jërëjëf oustaz Aïcha euh, ngoone euh, Saliou jàngat bi lan lay doon boo déggee li ñu wax jëmale ko ci euh, ñi nga xam ne ñoo féete modab imam Kanté moom wax xalaatam daal di ne d'accordul ci ni ñu tabbee commission bile nga xam ne ñooy saytu këru euh, diine yi euh, moom it indi na ay leeral mhm. ci li nga xamante ne moom la modab taxawaay bi mu war a am ca loolee ak ñoom la ñu namm ci këru diine yi jàngat bi lan la. nga baal ma nag ma dugal ci ànd xam naa ñu may seetaan. Mhm. léegi dañu dañu tëralaat mbir mi. waaw bu dee wàllu communiqué bi. imam Dramé moo ko jiite cellule de communication la ñu a mhm. boo xamante imam Malick Dramé moo ko jiite de passage maa ngi koy nuyu. d'accord mais li ngeen di wax yëpp ñoom ñu ngi koy suivre ak président bi muy. Cheikh Tahir Fall ak le coordinateur Cheikh Omar Bamba Diop. xam naa bu ngeen jotee numéro Imam Malick mhm. léegi parce que dañ koy dañ ko bëgg a def anam boo xamante ni du ko jóg rek dem di wax lu la neex. Mm. dafa am organisation ci communication ci communication bi. Mm-hmm. sekk nañ ko imam Dramé bu ngeen ko jotee rek danañ leen tegal lépp incha allah. incha allah jërëjëf baax imam Dramé koy nuyu bu baax a baax a baax Aïcha euh, Ngo. waaw imam euh, imam dafa wax xalaatam. Mm-hmm. nangul man man dama jàpp nit xalaat bi mu wax. Mm-hmm. moo xam mais balaa ngay wax ci dara. foog nga maîtriser ko. peut-être bu duggoon ci projet bi xool parti bi nga xam dañ ko jagleel wàllum diine ak ñoom nan la ñuy doxalee. nañ ko gindi wala mu balaa muy def interview wala balaa muy wax leen na mm-hmm. mu woo ñoom ñoom dañoo structuré ku ci nekk am nga pàcc boo xam ne foofu ngay waxee peut-être ba bu leen laajee ne lii ak lii nu ñu koy defee wala lan moo tax ngeen wax lii bàyyi lii wala lii ngeen bëgg def lan moo tax ngeen defee ko ni peut-être que ne dina sax am réponse boobu loolu dañu fi yàgg diaboliser Pastef moom xam nga li may wax xam ne fonk ñu diine am ñu fi naan duñ dem mm-hmm. Touba duñ dem Tiwaawoon mm-hmm. ba ci campagne ñu gis euh, le président Diomaye dem tout kii Mbàkke mhm. ànd ak seen Cheikh Coro Mbàkke ah ñu naan fonk ñu diine foog naa keroog ba mu mhm. demee Touba ak ni mu doxalee mhm. ci yar teggin ni mu simee ak ni mu gisante ak sëñ bi loolu am na lu mu firnde ci seen programme ñoom ñu def loo xam ne moom mooy direction des affaires religieuses kon xam nga kooku mi ngi bàyyi xel ci li nga xam ne moom mooy di ko biir palais waaw andi ko biir palais te ku nekk ak pàcc bi la jox xam nga yow duñu la fa fekk wala ñu fekk fa jox la ko parce que dafa am ñenn ñoo xam ne ñooñu ñoom ñoo ko war a doxal ñoom lañ koy jox wax ci leen na di nga wax sa xalaat waaye dinga nga maîtriser jéem a xool boog ñoom projet ba nga xam ne teg nañ ko mm-hmm. ngir lire la la ca la nga ca soxla bu dee wàllum agriculture la nga xool fi lu ñuy wax ci agriculture bu dee wàllum diine la tam. nga xool ci wàllum parce que structure bu nekk ak nu muy doxee. te euh, peut-être que moom na muy xalaatee ak na muy doxee ak ñi nekk Modab. nañ koy liggéeyee ak nañ koy doxee. daf du nekk benn. bokkul sax ma bokkul non. bokkul nekkoo ci biir mënoo xam doxalin bi mënoo xam tëralin bi te la sos tam bu fekkee ne bañ koy sos ak la ñuy waxtaanee fekkee woo ko pour nga wax ci dafay a jafe. Mm-hmm. ma si bëggoon laaj. Mm-hmm. wax ne ku la abal bët mm-hmm. fu ko neex foofu ngay xool dañu mm-hmm. yaakaar ne imam tey jii bu fekkee dafa dépendre ci état mm-hmm. am na ci ñeneen ñoo xam ba ci seen ay xutba da feeñ parce que dañuy bëgg a neexal wala ñu bëgg ñu dolli leen la xam ne moom la wax ñun ñëpp dañoo respecté imam loolu ñun ñëpp dañoo respecté nit ñi ngi seen baptême ñun ñi ku nekk imam moo lay ñëw tudd la bu dee ngénte bu dee dëj ñoom ñëpp loo ci mun ci def ba ci ay problème wala yenn yoo bëgg laaj imaam nga koy laaj kon mm. kooku lu ñu ko defal mm-hmm. man yaakaar naa kenn du ci du ci bañ yow sax boo amoon yow mii

dëgg yàlla lañ daan wax daaw. Mm-hmm. ak li ñuy wax ren bokkul dafa dañoo dañoo